im ku ko imaginer ci dund ñu wàññi ko ni la moo leen yóbbu ci ay tout tànk lu dem ci ay fukki xale ak benn dafay nekk loo xam ne diis la waaye nag nañ ko delloo ci Seydi Hadji Malick borom dëkk bi wax na ni war a dini bil xada rabbi musabira ne ala balayka ya rahmaanu yàlla yàlla dogol yi ci yow lay jóge waaye maa ngi ñaan dogal bu mu doon mu mën a jóg ci yow ñëwee ci man yàlla naa ko may ma kàttana gu ma ko nangoo ndax sa yërmande rek moo ci topp xale yi dañu retourné waat parce que ñoom yàlla préparer na seen biir nekk ñu ñuy am problème bis penc parce que ñoom yàlla préparé na seen sarne ba pare loolu am na kon ñoom amuñu bàkkaar waaye nun ñi fi des ak seeni i waajur ñoo am problème waaye lii nag bu ko kenn bu ko kenn accusé kenn ma sàmba wala ma demba nit ñi bala ñuy xalaat ci war a war a euh, sanctionné nit ki wala ñuy torturé nit ki na ñu xool dogalu yàlla ba pare ca loola ndax bari na ku ñëw hôpital ne fi nekk santé di liggéey sa yéene mooy ku ñëw ci yow yem ci yow faju wér dem ñibbi këram kooku yéeneem dèjà da nga ko koy nangul li ci des na nga xam ni dafa ñëw mu nekk euh, loo xam ne metti na nañu ko delloo ci dogalu yàlla ba pare ba ca des mooy ki nga xam ne moom rek lañuy yaakaar te ëllëg la muy Cheikh Ahmed Tidiane yi dafa wax ci réew mi nee na man waa Sénégal damaa den dañoo rep réew mi fanweeri at ak topp a nii ma di ko wax te ma nga wax ak man wallaay ma nga wax ak man nañ ko sang bu ñu ko sangul def na ko sang ak deret te am na ñu ñëw ci sunu biir nekk ak ñun te bët kese gisu leen te ñoom ñu ngi ci réew mi fees dell accident yi ngeen di gis ñoom ñoo koy créer safare yi ñoom la ba ci couple yi ngeen di jàmbat léegi jamono bi ak ni mu demee ni couple yi di gaaw di tase problème yi di ci am nee na du kenn ku dul ñoom la te bala ñoo bàyyi dañ faste sikkim yëpp mu ni nañu sang réew mi mu wax ko yàlla dogal am ko ko posé question ni ko waaw léegi sang réew mi est-ce que dafay laaj ñu wutal ko togg mu ni réew kenn du ko sang tu wutaloo ko togg mu wax ko yàlla dogal mu dem Serigne mu Wade defaat beneen conférence wàññi ko wax ne Serigne Cheikh neen nañu sang réew mi mais réew dafay am janaaba te janaaba kenn ku ko amee da nga koy dindi te réew mi dafa amee janaaba ci politique bi ci jiitu mooy politique gu Senghor dafa sant benn ministre ni ko ñett laa bëgg nga xeex leen ba du ñu am budget de guerre Cheikh Tidiane Sy bu Tivaouane Ibrahima Seydou Ndaw Kaolack Caroline fay bu Mbour ci ku séqul ak yow dara tooñ googu ba léegi mu nga fa day baabu Babacar Seye ba léegi yëf yaa nga fa réew na bu ñu koy sàng il faut ñu defal ko kafaara mooy pardonné wu yi xew ci réew mi te ñu dellu defar xol yi lii àddina bi yëpp koy coow mais ñoom pare nañu ci mais nun ñi dese àddina bi la yàlla ne nañu organiser wu ba kenn ku ne bàyyi sa xel ci li nga xam ne mooy wàllu àddina li la ci war nga di ko def loolu rek mooy mooy li ci nekk kon bu fekkee yàlla dogal na kilifa yi ñëw nañ fi def nañu constat bi nee nañ ñu ngi dem def étude bi ñu ngi ñaan ak ñi fi nekkoon ak ñëpp yàlla na woyof ci ñëpp ñay dem dem nañ ba pare noo fiy des say buñ kenn ku ne yéene morom ma jàmm ndax looy yéene nit su ëllëgatee mën ngaa dem dugg ci bay laat moom nee na yàlla ku yéene ñëpp jàmm jàmmam ja bu dawloon ne pepp saraat di nga jot sa wàll kon nañu te jàmm waaye ñu sant tamit journaliste yëpp di sant média yëpp pour ndax lu mel ni tamit addina bi yëpp jotandoo ci te amagul 24 heures kenn ku nekk xam na ni jamono développé wu na loolu nag bu xasee àgg fenn kenn ku ne lu muy wax na ko xam lu muy def na ko xam te ñu yëg ni Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk mais yàlla na fi yàlla doole def jàmm waaye nag li góor gi wax sëñ Cheikh da koo wax dem waaye fi la ko ba ndax li nga xam ne moom la ci la ñuy wax ni euh, nañu sang réew mi ki nga xam ne moo yore lépp Serigne Cheikh Tidiane Sy laajuñu ko mu ngi fi te am nañu réyug dem laaj ko te nit ki bul ko jàppee ay politique da ngay jàpp ne sa réew nga war a defal Serigne Cheikh da daan rayanteeg Senghor ba pare situation taxaw mu woolu ko mu ñëw mu ko seex lii problème réew mi la du politique. sëñ Cheikh wax ko ay solution ñu def ko jàmm ne ñooy kon am na ñoo xam ne ay nit yàlla lañu yoo xam ne ñoom li leen ñor mooy àddina bi yëpp am jàmm kon mu sawa du affaire politique ñoru ko Serigne Moustapha du doon président du doon ministre waaye yéene na réew mi jàmm. mais tey bu fekkoon ne la leen war def nañ ko def déplacement yabal délégation forte dem toog ak wax moom ko ni ko góor gi wax na ba jóge fi dem nun ñëpp tiit nañ ci réew mi seetal réew mi nan la stable da koy def ndax it sëñ ceex yóbbuwul dara lépp mu ko fi bàyyee su ko defee fa tabarakallah ñu xam ni kenn ku ne am na lu man maa ngi mën a ñaan ñaan waaye li sëriñ ceex yoroon dama leen di wax ni leen yóbbuwaale wu ci dara jëmmam la dem yóbbu ko ndax mission jàmbur la te mission bi jamono beek ak ku nekk ak ko ko yor yëg bi mooy delloo ko ci man ndax kenn ku ne image bi da koy delloo bu doon sa doom la te ñun ñëpp suñuy doom lañu kon métti métti xool nga ci am waaye nag am na loo xam ne bu amee tamit la ca jiitu pour mu oyof ci yow mooy nga nangu dogalu yàlla man du ma wax kenn kuy liggéey ci hôpital bi commencé ci directeur ba ci suuf du ma ne kenn ko def loxol yàllaa nga ca biir dee mënta am te yàlla yebalul malaayika mawti léeg-léeg maanaam saggante gi duma ma ko lu tax du ma ko nangu lu tax duma ko nangu mooy lan mooy ñoom ñi am image yéene ñëw liggéey si danga leen nangul seen yéene ba pare su fekkoon dañ faa taalu fourne wala gas ba ko fa dem seen yoon su amee nañu def constat bi ne sàggante la xam nga manque d'assistance bi xale yi fi ne tamit ak tout le temps du du fa nekk dafa am jamono boo xam ne dafay nit nekk pour surveiller waa jamono bi nga demee surveiller génn lii am am man nga faa dellu soit di dugg ci safara xale yi li ñu soxla mooy oxygène oxygène lañ soxla parce que tamit dafa am ay branchement yoo xam ne ay matériel ngi fi mais oxygène boobu am mën na yegg foo xam ne bi mën na yegg foo xam ne bu ñu ko coupé wul mën na def li muy def su ko defee ñu wane ni maanaam eh, parce que Sénégal